ay ca mbokk internet Thiès Info Thiès TV ñu ngi leen di nuyuwaat comme ni ñu tàmmoo di ko def ak yéen rek saa su nekk rek bu ñu amee xew-xew bu ñu leen di indil dañuy dem rek ànd ak équipe bu Thiès Info daal di leen koy baaxee tey nag ñu ngi fii ci foire internationale organisée par Dame Sall ñu fas yéene waxtaan ak moom rek tuuti rek ci li nga xamante ne moo di foire bi tarkal ba ñu duggee gis nañu am na ambiance jaaykat yi ñu ngi jaay. am marchandise rafet rafet tarkaal la tey organiser foire yaakaar naa ne nekkul lu yomb ayca monsieur Dame ñu lay nuy bàyyi nga nuyoo ak mbokk internetu Thiès TV monsieur Dame ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay di leen remercier d' abord ci seen euh, déplacement ci remercier effectivement les internautes qui suivent très souvent Thiès internautes y compris Thiès info y compris moi. donc bu l'avez bien dit la foire internationale de Thiès depuis dix ñu ngi koy organiser parce que bi mooy dixième édition mais c' une vision. mais c'est également un projet parce que dañu gis ni Thiès est devenu un carrefour soo xoolee l'autoroute à péage bi nga xam ne nu som à quelques 30 minutes de Dakar Ila Touba nekk fii nous avons également l'AIBD et très bientôt le port de Ndayane cela signifie que dans l'avenir Thiès dafay nekk maintenant le Sénégal sur le plan économique et sur le plan culturel également et j'ai constaté que ni depuis 1960 ñun Thiès waaye dañ doon dem di uti ji su ñu demee ba nga xam ne ni jàpp nañu lépp dafay dellu si Thiès alors il va falloir maintenant que les ñoom ci seen bopp jëlal jël ci seen loxoy bopp le développement de la ville de Thiès. c'est pourquoi nous avons initié la foire internationale de Thiès li ci jublu nag mooy fexe ba nga xam ne ni suba at ginnaaw suba dinañ mën a fexe chaque année ñu réunir tous les décideurs qui agissent dans le domaine du commerce ici à Thiès pour réfléchir et prendre des c'est ça Aïcha Dame mu nekk am solo ñu gis foire bi tarkalla macha allah réussite totale lañ ko mën a tuddee mais Dame depuis dix ans nga ne yéen ngi koy organiser est-ce que doon nga ci jànkonteel ay jafe-jafe ba jusqu'à nga egg ci dixième édition bi. mais vous savez organiser un événement comme ça c'est toujours des difficultés mais la réussite euh, se trouve au bout de l'effort parce que su fekkoon dina ne ay difficultés dafay tax ñu bàyyi je pense que ni arrêté nañ bu yàgg mais li def kees moo tax ñu di ko def. parce que vous n'avez peut-être pas encore posé la question de l'investissement. Mais Binidogo commencé l'événement, l'investissement était très faible. Mais aujourd'hui, nous sommes à 40 millions a pour organiser un événement comme ça. Et je n'attends même pas un retour d'investissement. Et s'il s'agit des stands aussi, bon, social, je pense que nous pouvons me permettre de récupérer les métiers investir. Mais ce que je déplore, c'est que nous faisons que nous sommes un Thiessois, di def loo xamante ne ni la avenir u moo ci engagé wu dama jàpp ni képp koo xam ne ni da nga nekk Thiès te développement Thiès intéressé la danga waroon ñëw jàpp ci événement bi accompagner événement bi malheureusement ce n'est pas le cas mais ce n'est pas un problème aussi hein. donc da nga bëgg wax ne amul kenn ku nekk sa ginnaaw ku la jàppale. je l'ai fait sur fonds propres. Bon, et que je n'ai même par des contraintes de temps, donc négocier avec certains sponsors qui ont l'habitude de, de, de m'accompagner. investissement sur fonds propres parce il fallait effectivement organiser cet événement impérativement cette année. Parce que depuis 4 ans, donc, nous mettrons en stand-by l'organisation de la foire internationale de Thiès. su fekkee ne yow dong yow yaa ko organiser ak ay say fonds propres est-ce que daa mun nañu wax moom ci lan la yëngu ba tey ji yàlla yombalal ko li nga xamante ne moo di foire internationale. bon je ne suis pas tout simplement un organisateur de de de la foire je suis également l'organisateur donc depuis dix ans aussi man maay organiser le Malo d'or mais je suis également un membre du secteur privé qui est dans le secteur du commerce qui fait des affaires mais je suis également à la tête d'une organisation qui s'appelle le groupe Intercom qui travaille dans le domaine de la communication quand je parle de communication je parle d'une communication qui permet aux entreprises qui sont à l'étranger et qui veulent avoir un accès dans c'est ça est-ce que doo jànkoonte ay difficulté pour waxtaan yenn commerçant yi pour ñu ñëw euh, présenter ci li nga xamante moo di foire bon je pense que les commerçants ont répondu massivement et que vous avez vu ce qu'il y et il y a des stands qui sont là qui sont déjà achetés mais seen borom moo ñëwagul parce que très souvent ñoom ci la dernière semaine de la foire donc euh, la ñëw c'est que euh, li ñu war def kay mooy fexe ba les grandes entreprises maintenant commencent c'est-à-dire une part commerciale et une part professionnelle. Donc permettre aux entreprises donc, de venir avec des rencontres B2B et signer sur place effectivement des accords. Mm. Est-ce que M. Dame, Bon, je l'ai dit de mes propos. Je sais que ce que investi, je n'attends pas un d'investissement. Mais ce qui est essentiel pour c'est de faire en sorte que la manifestation se tienne. waaw ngay wax Thiès waa yi nga xamante ñu ngi a mën mais Thiessois jàpp nañ ci honnêtement pour vous la vérité parce que non seulement ils sont sortis massivement xam nga soo organiser foire à Thiès ni foire internationale de Thiès te Thiessois yi déplacé wuñu les gens vont se poser des questions mais les Thiessois se sont déplacés non seulement ils se sont déplacés mais ils ont participé également à la réussite de cet événement parce que exposant ku jënd. commerçant yu fi bëri euh, waa Thiès lañ. am na fi ils sont à être là les les Thiessois mais aujourd'hui nous avons également Nous avons la côte des exposants qui viennent de la Côte d'Ivoire. Nous avons des exposants qui viennent du Bénin, du Mali, du Burkina Faso, la Guinée et une colonie de la Mauritanie qui est ici derrière. Donc ñoom ils commencent vraiment à répondre donc à l'invitation de donc de, du groupe Intercom pour euh, l'organisation de la foire. léegi lan ngay wax autorités yi nga xamante ne gis nañu belle initiative bi nga xam ne c'est day attri day contribuer ci développement Thiès lan nga leen di wax pour ñu ñëw mën la fekk si li nga xam ne moo di projet bi. Euh, je m'excuse kenn du ko jàngal war a def. mag dafa war a xam li mu war a def man je ne cours derrière personne parce que je veux être un professionnel c'est-à-dire quelqu'un boo xam ne je m'appuie sur des sponsors pour organiser mon événement mais képp koo xam ne ni jàpp nga ni nag yow danga nekk nekk Thiessois wala nga nekk un Sénégalais te jàpp ci événement war la soo ñëwee tàllal ñu loxo ñu dina la tàllal loxo en tout cas c'est ça le mais courir derrière des gens demander à certains de venir être des parrains et autres franchement Euh, su nekkee loolu la ils ne vont jamais participer à l'événement parce que je ne le jamais. ayca monsieur Dame ñooy tàggatoo ak yow rek lan mooy sa kàddu bu mujj. remercier leen yéen ci seen bopp remercier également seen euh, PDG mais delluwaat encore une fois di remercier les Thiessois parce que vraiment. Euh, donc ils ont contribué su ñuy wax réussite de l'événement man je sais que au départ nous avons réussi l'événement donc kooku Thiessois yi laa ci euh, laa ci remercier bu baax mais di leen gën ñaax aussi ñu xam ne événement bi man moom moo ko organiser rek laa ci am mais événement bi c'est l'événement des Thiessois waaw. Ah merci beaucoup monsieur Dame. ayca ñu ngi nag ci bat léegi ci foire internationale organisée par Dame Sall tey nag ñu ngi ci benn soxna rek boo xam ne mi ngi jaay macha allah ay objet yu am jom gis nañ fi sax ay objet d'art ñu koy nuy rek mu wax ñu tuuti ci lu waral teewaayam ci foire bi soxna si ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar. soxna si noo tudd. man Bintu Lo laa tudd. Bintou Lo mën nañu xam fan nga jógee pour teew si foire bi. waaw cees laa jóge cees laa nekk waaw ni ma gisee loolu mooy xam naa ne bu ma waxee si daam sax. day mel ne répétition parce que xam naa ne koo mënti interviewé loolu la lay wax Dame am une personne assez spéciale li muy organiser di ko organiser ñu ànd ak moom tout le temps depuis presque des années léegi mu mat 10 euh, ans bi ñu commencé ànd ak moom kon euh, sant yàlla di ko gërëm nag ci mm, possibilité bi mu ñu may ñun ñi nga xamante ne sax duñu ay foires ñuy ñëw di di participer ci foire bi euh, ba mën a wane suñu bopp ba nit ñu xam ni si moom tamit di ko ñaanal lépp loo xamante ne mi ngi ko sumb rek yàlla may ko ci ndam foire bi en premier lieu nag. Euh, parce que ñun ñëpp dañuy ñëw pour wane si suñu bopp wane si suñuy article nga xamante ak nit ñi ba nga xamante ne dinañ mën a am euh, un suivi. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci beaucoup ba tey rek ñu ngi foire internationale organisée par Dame Sall tey nag ñu fekk fi ñaari jigéen yoo xam ne dañu yor ay produit yu am solo ñu fas yéene waxtaan ak ñoom soxna si noo tudd. Aïssatou noo def. ça va yéen a ngi si ngi si jàmm. tur bi nan Aïssa yaa ngi ci jàmm Aïssa nga ñëw ci foire internationale bi nga xamante ne kii di monsieur Dame Sall moo ko organisé nga daal di indi ay produits yu am solo est ce que mun nga ñu wax produit yi yan xeetu douleur lay faj. waaw lii ay huile essentielle la est à base de manne sauvage c' pour les douleurs maanaam les maux de tête. nga amee migraine bu lay sonal souvent arthrose rhumatisme. les nerfs sciatiques wala nga amee ndigg buy métti wala sa yax di métti daal fépp fuy métti si yaram bi rek danga ko fay diw soxlawul nga koy maase wala nga koy def fenn da def ni benn goutte si sa loxo bi taalal loxo bi da ngay def benn un nga maase maase nii bu baax nga frotter fii ci loos bi juste pour nga xool effet bi muy def si sa yaram waa fépp fuy métti rek danga ko fay frotter mun nga ko mélanger aussi ak beneen quarité quarité wala beneen huile boo am rek à votre choix nga mélangé ko maase ko sa yaram lii bu dee da ngaa soj nga sinusite wala nga asthmatique wala nga amee allergie wala ngay sëkkat lu bëri wala nga angine da ngay jël ndox bu tàng amul dara ndox kese la ak benn goutte comme cela yaa ngi gis après nga koy nooy gëmmal nga nooy ko essayer gëmmal waaw euh, ça débouche les narines da ngay nooyi normalement bakkan yi day débouché wu c' de la menthe waa c' est pour cent naturel et c' est aussi mën nga ko naan ak café meew ataaya benn goutte nga naan ko fépp fuy métti yaxam bi nga appliqué ko foofu ay produits allemand la et c' est très efficace dafa am flacon bu ndaw bu 10 ml ak flacon bu mag bu 20 ml bii ñu ngi ko doon jaayee prix normal am c' est 12 euros 8200. bi c'est 19 euros 13 cent mais foire bi moo tax ñu wàññi ko def bi 5000 bi 10 000 boo jëndee bu 10 000 ñu may la bu 5000 waaw. Ah, mais loolu xew la ne de. mba ñu la ko jaaye dañ lay jox mode d'emploi buy expliquer tout cela lépp lu ma la wax fii boo ko fàttee une fois la maison à te reposée nga liir lépp tout les tous ces tout est noté en fait waaw lépp bind nañ ko loo bëgg a xam rek bind nañ ko. Aïcha Aïcha nga daal di expliquer lu am solo mais sa gars yi ñu ngi ñëw di jënd. waa ñu ngi ñëw nànk-nànk dañ koo xamagul moo tax waaw mais ñu ngi ñëw nànk-nànk di jënd si. Euh, ñu jàpp ke ne fii ak balaa foire bi di jeex rek incha allah dina gën a neex waa yàlla baax na. est-ce que ciy gis seen bopp baax a baax. waaw ñu ngi siy gis suñu bopp nànk comme weekend bi passé jaay nañ. weekend bi samedi beeg dimanche bi nit ñi ñëw nañ te guddi gi la ñuy gën a ñëw que matin bi mais guddi gi moom dinañ génn xam naa jour ouvrable bi ak li mu nekk ouverture yi moo tax nit ñi duñ ñëw mais xam naa weekend bi dinañ ñëw bu baax a baax incha allah bu soobee am. ngay mi leen may occasion ba ngeen mën a ñëw ci foire bu am solo bi ba exposer li nga xam ne moo di seeni produit ah, dañ koy remercier parce que lii dafa baax ci réew nit kuy liggéey ku nekk bëgg nga ñu xam sa njaay bëgg nga ñëpp xam ko à travers la euh, ci monde bi yëpp yëpp yëpp kon lii dafa dafa baax dañ koy remercier ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi di ko kàttanal à chaque fois chaque année mu mën di ko def ñun tamit yàlla may ñu lu ñu mënee di ñëwee di ko jaay maam euh, wax dëgg yàlla def na ci xéewal ndax instant info ñëw di leen ah Thiès Info ñëw di leen waaw kay waaw mi ngi noonu ba pare stand yi yomb na macha allah yal na ko yàlla defal jàmm daal bàyyi ko ba ci kanam. Aïcha ñu lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup. Aïcha ba léegi rek ñu ngi ci international organisé par Dame Sall sëñ bi ñu ngi bu baax a baax. maa ngi leen di noo tudd. Ndiaga Seck. ayca Ndiaga Seck gis nga def teew ci li nga xamante ne moo di foire bi nga xam ne moom la Dame Sall organisé indi ay bagaas yu am solo tarkalla macha allah mi nii suñu ginnaaw nan nga gisee foire bi. waaw foire moom macha allah euh, lii la Sénégal soxla nit ku am idée pour créer emploi quoi. comme tey ni mu foire bi demee nii nga xamante ne ay millions personnes ñoo ci gis seen bopp. Mhm. Aïcha mu nekk lu am solo marchandise yi nga indi fan nga jóge pour ñëw ci foire bi. yi man nag benn jeune laa xëy na bëgguma sax di présenté wu lu bëri bu demoon à l' étranger nekk Europe def fa 18 ans mais dama toog xam ni sama dëkk soxla na ma ma ñibbisiwaat Afrique euh, mais ba léegi man maa ngi résidé Espagne. léegi nag conteneur yi may chargé yëpp Espagne laa leen di jëlee am naa ay boutique Sénégal macha allah même Thiès bi am naa fa boutique dakaar xam nga xam nga région yu bëri am naa fa quoi mais dama indiloo loo nga xamante ne tey par exemple du bokk ak day nekk divers quoi nga xamante ne ki yor téeméer wala ki yor cent francs sax da ciy mën a gis boppam macha allah. yan matériel nga gën a indi ci faar. waa man bi ma roon soog a commencé nag maa ngi commencé woon tey par exemple ci saak mais léegi dama dem ba boole si lépp dama yor naa damay jaay dàll. damay jaay cap damay jaay pochette damay jaay gis nga bagage yi ngi nii tungu ni du teew xamu ñuy nataal xamu na ko olof di waxee waaw bagage lépp daal laa indi xam nga saak lépp lu ne bàyyi ma dara daal. ayca mbaa client yaa ngi ñëw rek. waa client yi alhamdulilah client yi ñu ngi ñëw bu baax macha allah waa xam nga waa Thiès ñoom dañu bëgg seen bopp. waa ñu ngi ñëw macha allah ñu ngi ñëw bu baax. Mhm. mais yow nan nga gisee lan ngay wax daam mi nga xam ne moo am xalaat bu rafet waa daam dama koy jox comme man comme yoon bi ma bi ma jaar. xam nga tey dama nekkoon Europe di liggéey di jaay affaire yooyu noonu kërëb kërëb comme ni Mourou moo def ma teg sama stage ñëw ubbi sama société xam nga di indi ay bagages di jël ay nit am plus de cent employés loolu li daam def tey man dama ci kontaan parce que man avant ma doon xamante nan mais sa jour ñu ngi toog di waxtaan ci idée yi mu am. parce que lii bu ko tey bu ko bu ko cent personnes defoon rek tey ñu bëri dañ ci gis sa bopp dañ ci gis sa bopp ma gis sama bopp parce que man maa ngi déplacé wu Dakar. am ñu déplacé wu faneen ak faneen tey ñooñu ñëpp bu ñëwee économie Thiès la xam nga ma la nekk économie Sénégal. nga ñamal ni tuuti espagnol de waajee waaw waa ji moo ma bëgg a jaay. Euh, entonces lo que acabas de decir en wolof lo voy a decir en español como que el dam el señor que ha organizado esta feria es un señor fuerte porque una persona que siempre tiene unas ideas claras siempre va muy bien. et sa localité booy dessert. ayca ñu ngi lay jaajëfal bu baax merci beaucoup. ayca ba léegi rek ñu ngi ci foire internationale bi nga xamante ne moom la Dame Sall organisé ñu taxaw ak benn jongoma tarkalla macha allah moom tamit mu ñëw exposé li nga xam ne moo di ay dàll soxna si ñu ngi lay ziar. Euh, ñu ngi lay delloo ziar bu baax soxna si ñu ngi lay nuyu di la sant la jox sa wàccuwaay. merci beaucoup soxna si noo tudd. man Khoudia Mbow ñu naan ma madame Mbaye. wax dëgg la gaynde la ndax dugg ngeen ci foir bi xam ngeen ni ko amul benn expérience bu a koo organiser am na fit bëgg na li muy def gëm na cees xam na li muy xam na fi mu bëgg a jëmale Thiès tamit kon ñu ngi koy ñaanal wax dëgg yàlla euh, lépp lu mu séntu ci lii bu dewee déwénee mu yokk loolu lañ koy ñaanal te chaque année mu ndil ñu ko nag waaw madame yi ñu lay jaajëfal bu baax a baax yàlla jaral njaay mi <laughs> ci barke sang-sang yi aca merci beaucoup mbokk internet Thiès Info lii lañ leen indi woon ci foire bi nga xam ne international bi nga xam ne moom la daam Sall organisé tarkaal la yaakaar naa ne ñoo ko dundandoo gis ngeen foire bi am na solo lu xeetu baax baax boo yaakaar mu ngi ci foire bi te nag ak prix yu abordable macha allah kon nag ñu leen di lancé appel rek ngeen ñëw ngeen jënd si ngeen baña ragal comme ni ko madam Mbaye waxee ngeen di jënd ci standard yi aussi xam ne lu mu metti metti di ngeen ci génn ñu leen di jox dig daje ci yeneen i jotaay di nuyu le PDG El Hadj Latir Sey madame Diouf Seck moo nekkoon na ci caméra bi ñu koy jaajëfal bu baax merci beaucoup e bon suite de programme